ñoo ngi nuyu mbokk jullit yépp di leen siyaare ci weeru tedd bi waxtu wu tedd bi ak barab bu tedd bi tey nag dinañ fi ànd ak Cheikh Ahmadou Rafa Mbacké ibnu Sëriñ Fall sëñ Rafa Ahmadou Rafa ay doomi Cheikh Mahamadul Fadel moo jógee Touba ñëw seet si wëlëreem xaritam mbokkam mu ànd ci tànk yooyu di leen seereel rek ni jëmm ji ñaare lépp lu ko tax a jóg loola danañ ci ñime ndax xamuñ ko ci li ñuy wax wax loo gëmut wala jàpp ko mëtta jàpp loola moom yàlla def yàgg na ñoom moom waaye xamuñ ko ci moom moo tax képp ku ko tax a jóg képp kum jàpp ñun danañ gëm ni kooka mat naa jàpp waaw sëñ bi nag sëñ moom di muy day walëreem moo tax bis bii nga xam ni suba lañ ko war a def xat ci moom lool waaye moom ñàkk ñëw ndax yu baree baree bare moo tax mu jóge Tuuba ñëw fekkee si bisam bi xam ni su fekkoon lu la ko fa war day ànd ak moom ba mu jeex ñu delluwaat ndax yi ko yi ko war a waral bari na seen diggante kon ñu ngi koy ñu leen koy seereel loolu moo doon tànk yi nga xam ne moo taxoon ñu ñëw fi noo ngi nuyu mbooloo mi yépp di leen siyaare te di leen bala xaq bokk di dalal sunu sang bi fi nekk cheikh ahmadu rafahi moom cheikh mohamadul fadal di ko xoole it jëmmi sëriñ fallu ci jataay bii mu toog di am mbégte lool ak xol bu sedd lool ci teew gi mu teewaat ci bërëb bi dañ bokkoon teewaat fi daaw suñ borom may noonu fekkewaat ko ren jii di ko siyaare te di ko masawu ci coono yi ay yéego yi mu dox ba ñëw fii ndax xam nañ ni xat-xat yi mu nekkee ak fi ñu koy soxla fu bari waaye mu dagg yitte yooyu yépp ngir suñu jëmm ak béréb bi moom nag sunub sëriñ la sunu jur la bët yi ñu koy xoole bari na ndax ku ne xam na ni Cheikh Mouhamadul Fadal mooy lépp sëriñ am di Moustapha sunu wayjur biir njabootuk sëriñ Fallu googu it moom mii sëñ am di da ko tegoon foo xamante ni jàpp nañu tegu fa woon kenn donte yàlla dogal na magu ci woon waaye ni mu jaxasoo woon ak moom ni mu wëllëree woon te nag moom ak ni ko sëñ am di soppe woon ñëwaa na kon gis mu xool ko yooyu bët moo tax jëmm la joo xam ni ku sori ci nun la ku sori it ci suñ xol la kunu nu jàpp la it kunu nu safoo la it ku nu yittewoo la it noo ñaan suñ borom fiq aw fanam te yokk ak wéram te mboolem yéene jëm am ci yaatal ak leeral njàngalem sëriñ tuubaay yi ci lislaam sa borom defal ko ci tawfiix ak ndam ak tawfiix ndax yaakaar naa ne ñi koy topp bari na lool moom jëmm ji ci waxtaanam wi am solo ak dénkante yu muy dénkanteeg jullit ñëpp nga loo xam ne jullit bu ko dégg man kaa jariño kon sëriñ bi noo ngi lay dalal xam ni bi nga yegsee kër gi moom sa kër la yaa ko moom moomin wér boo xamante loo ci dogal rek mu dog daanaka amatuñ ci suñ bopp dara fii nuy waxe ak yow ndax bët yooyu ñu lay xoole lenn lu ci nekk da koo matte sëkk muy bokk gi muy taalibe gi ak cofeel gi lépp da koo ëmb matale ko ci gën ngaa rafetee anam kon no ngi sant ci sa ñew gi lool te di ci bég lool te di la tatagal te di la yaatal nga xam ni daal fii sa kër la ñaan fi nag naataange ji yokk xéewal yi yokk nawet bi barkeel te nu muurloo ko te mu sedd guyyu te ñi yéene ñëw ci bis bi yépp it nga ñaanal leen ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te delloo njëggal ak yërmande ak ngërëmal yàlla ak jàpp lu mbir ba faw ak mujj gu rafet ba faw kon nag noo ngi taataan nga dénk nu nu ubbi suñuy xol nun ñépp fas yéenee taataan lim nuy dénk te fas ko yéenee jàpp te fas ko yéenee jëfe muy sunu yóbbal àdduna ak alaxira salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah leen ñu jaarale sunu nuyoo ci yéen mbokk yi fii dëkk teew dafa ñuy ñëw ca kanam ko sëriñ Mor Bousso junje léegi rek moo ci nekk barab bi day benn ci barab yi nga xam ne yàlla moom dénk ko sëriñ Tuubaa waa yëkkati war ko laaj ko ci waxay suñ suñ ak mi te maya nag mën ngaa may ku la soob waaye kuy dénk kuy dénkaane fekk mu doon koo xam ba noppi te ko dolli ca boo dee maye ma mën may koo xam ak ko xamul kon ñu ndokkeel wala ki leen yàlla boole sëriñ bi ndax loolu mu ànd moom loolu dara nekku ci hasard léegi lañ koy lañ koy biir kër gi ma ne ko man sama ñëw mooy ñëw waree bari loo xam ne mën naa am danañ ñëw sax ku am ngant te ñëwut it sama ñëw mën na koo ñëwaaleel maamam bokkum Sëriñ Tuubaa ak bokk ba yàgg liggéey rawatina ci diine maa ngi ko junj léegi am na ku siiw di ko borom réer gu metti ga yàlla nañu ci musal abu jahlin abu jahlin ku ko gën a jege yonent bi ci bokk nit yombut a wax ndax moom bàyyi ma bokk baay ok bokkuñu lay sax waaye lu tax ñu tudde ko borom ngeer gu metti la ba aw saar wàcc ci alquran garantil ko ak demam sawara moom waa këram dañu ma ko yonent foofu nañ fi teg baaraam am geneen mbokk koo xamne ku mbokk ak abu jahlin la ben bay muy sidina Hamza tax buñ ne Hamza wala ci sidina buñ ne Ali wala ci sidina ta bu ñuy wax abu jahl abu jahl lay wax tam tuddu Amr ibn Hisam moy seenu bok ak yeneen ci ñom ñaar sidina حمزة سيدنا علي بسبس بسبس بمرة من حملة يعني بسبس كان لك هناك لك بولو يننتي اك لاكو تاغالو يننتي وقتانا بوكم غود و خا من ام ني وقت كانم تاي بروي خا خا دي نيو سي دي نيو سو دال موم نكو غنيي جيغال موي مامام سي اجرا bokkum Sëñ Tuubaa la ci wàll yépp waaye it yàlla da ko dimbale ci dogal bi agse ci Sëriñ Tuubaa am ndigalul dajale nit ñi teg leen ci aw yoon angul ko foofu Sëriñ am na fi lu jafe woote rek ay bokk nangu moom maamam ci la bokkoon di jël way juróom Moustapha si am di ki nga xam ne moo bàyyi si bi ma àndal seen ndajaa bokk eh, jox ko suñ fallu mu muriloo ci daal suñ si am di ma ne ko nag li wolof di wax naan lawoon fawoon ñawoon daa yeesaat sama diggante ak yow lu woon yu sori ya sax bu du woon yooyu dara du doon dara waaye su loola te ñu bokk ñun ñëw ñun ñëpp ñu bokk danañu ko bokk waaye bi ñu ko bokkee it mu demee nii mu demee moom ak wetam jaroon na ñëw ndax ku mën a jàpp nit la ku amug yëg la ci nit te yéene boppam day yéene ñum xam ak ñum xamagut kon jaadu na bu doon fu gën a sori fii jamono xat-xat ak bu tànk-tànk mën a deme dana jar ñu solo suñu dal ñëw ànd ko ak moom ba mu waaye nag li sëñ bi wax moo ci nekk xat-xati jamono bisub suba bi bu baax xew ya yu ni demee dajee ndox benn yoon lépp lu baax moo waral ñu ne nañ jëkk ñëw tey bu defee bu subaa moom mu nekkal ñu fi ñu nekkal ko foofa waaye li doonoon yéene ci mooy ànd ko ak moom moom àgg yi ñu wax ne yépp dana ànd ak bis bi ñu bokk ko fekkee ndoo seeree ndoo ko waaye nag wolof day léegu ne lu wat a xat-xat يطخ صفر وات فخر خد مم سيسا ظلم تمت مسخ صفر وات وهي لم خد خد نويل مسما بعيد الله تخد إذا مسخ يبقى سيسا ظلم يجب نويل مسما بعيد مطخ إيه، إذا لم ينعن الله يلا ورغم ما te may seetaane aw yoon bunt ndax tolluwaay bi eh, ku fa a toll ci ay at ak yëngu dana am ñaar ñu ko xëccoo bu baax la danañ ko xëccoo bëgg mu féete si ak ci ñoom waaye kii ñu baax ñu Dakar lool dana ko jéem a xëcc ca ak làngam waaye su boobaa la mat a ñaan mooy yalla yalla yàlla dogal ñu baax ña wat ba féete ci seen ak làng muy liggéey bu jafe it boo xam ne boo jiitoo jiitu taw ñu ne xool leen ni muy doxee xool leen tànkam yi jiitu dem lañ koy wax jiitu dem it ci dox kuy dox it la ñuy teqatal kooku moom kenn du ko tax sax ndax demul xel waajur si dana tax xaal li xew ci jamono bari na lool te moom na caa bokk ndax ñu ngi koy wax ci biir ci léegi nag ci saayir ci at yi am na at am ko am te nekk ci yeneen yoo xam ne ñoom ci seen bopp sax wóor na leen ni séntu wuñ ca dara luñ cay mën a am bu ëllëgee te ëllëg rek moo tax ñu baax ñu di liggéey moo tax daanaka seytaane di liggéey yàqal nit ki bu ëllëgee moo tax seytaane di liggéey kon ëllëg ñépp ko bàyyi xel kon ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaaral leen pas moom maa ngi leen di ndokkeel ci loolu ñoom itam ñu bokk àndoo ñu ñëpp ñaan yàlla jéego yi gën a dëgër te dox bi gën a gaaw àgg kon mm. euh, sant na si moom bu baax a baax gërëm nag dañu koy ñaanal ndax benn borom xam-xam ab buur benn waykat buur dafa may lu bare bare ci alal toog seetiwu ñu ne ko li mu jox ci lépp ba ba tey daaj fa ñëw bi ko joxee loxo rek daf ko ne lu ma la sant wala gërëm dem toogaat ne ko buur ne laaj leen ko lu mu ci jub xanaa du moom laa fi yónnee woon nangam ak nangam ak nangam mu ne ah kay mën waaye lu tax du ma la gërëm du ma la ñaan du la sant mooy dañoo sant gërëm ba tàyyi ko def dara te yow mii li nga ma defal lépp defagoo dara ndax fii nga toog bu ay at magoo ci bi su ma la ciy gërëm ci toogaay bi nga toog su fekkonte ne yëpp wut mooy tax am alal ba nga di ko joxe liggéeyoo loola tax am alal jama jox nongu gi nga ne nongu ci kaw ma toog ma toog fii ma toog it defoon la ko taxam li ma la ñaanal lay wax daal mooy dama la ñaanal du la bañ laa wan sa bopp bañ laa xëy ci jëflanteeg seytaane wan la yërmande njaar la si diggante ñi nga xam ne yàlla ëpp doole def ci juróom benn bi yu am maanaam yoo xam ne waykat yépp dañ ko yéem kon baat boobu wax dafa am solo ginnaaw sant nañ ku deful dara kon di jël kàddu yi sant di ko jëmale ci moom du am lan njariñ bu ñu dee gërëm ku deful dara itam noonu waaye nag dañ koy ñaanal yoon woowu nga xam ne wan na ko ko nga xam ne moom la ko suñu am di joxoon muy Sëriñ Saliou Mbakke ko dund sa ñot ñoti yàlla na gën dëgër ko yaakaar itam yàlla bu seen yaakaar tas xamal leen nag e, faw nit am ku mu topp mel na mu topp kuy dem wala mu topp ku dox tuuti taxaw waaye nag dinaw ganaar men nga xam ne ko jël la ñu wax ne topp kuy dem ca armeel ya bàyyi kuy dem ca wala ndoo moo yey wala ndoo mooy fi dugub ji ak di génne ginnaaw ganaar moo am kooku ràññee ci waxe wolof ku yàlla dugal ay say loxo koo xam ne ma ngay góorgóorlu dama teg tànkam fa ko gaa yu baax tegoon ma tax def mooy jàppale ko rek dem ci moom te bañ a xool wax ne ni la jànge ak jukki bind bu tooy gett la yooyu walaabal na ci top ci topp kilifa kuy jàng bind bu doy tey toog mi kuy taaye di tooge suma ci ndab teg téere bi ci ay penkam wala alluwa ji penk mooy yi mooy bët bi jàkk mbind mi baaraamam na ca teg aw lan mañam di ko noonu la ñuy jànge bind bu tooy nga ne loolu ko ko def bind bu tooy te jànge lu mat fanweeri minute wokkutu wut geesu wut bëbbal bébbali wut bébbali mooy li ko ne ku si bëgg a def defu dara lu may na jàkk yett yooyu concentré su defee fanweeri minute te mokkalu ko nañ ko ko wàññil lam nañ ko jox ëpp nañ ko nañ ko jox ëpp la dégg nañu leen wax baax noonu ñuy jàngi bind nag day mën a dox ci kilifa goo xam ne jéem a teg tànkam xam ko war a teg boo topp ci ginnaawam nan ngay ànd ak moom da ngay lu mu la wax boo ko déggee ci sa nopp nga teg ci sa bët ak sa loxo ak sa tànk bu dee fu la dem loola mu la wax ci aw làmmiñam sa nopp lay dugg waaye loo koy wax ci sa làmmiñ nga ci nopp na doon dëgg waaye loo koy joxe tak na nga xam fa muy jóge fan la te lu la ca wax nga def ko te yam ci jaamu def rek yàlla sax ak sawaab ko def nañ la ko sant te yam ca kon ma ni ma ko bëggoon mënewu ma ko noonu ndax waxtu gàtt waaye daal ñi nga xam ne jot nañoo ñëw ak ñu ñëwagul ñëpp yàlla bu ñëw bi ñu fi ñëw te ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu nanguwaale suñu koor war koor yu koy def te dem fees dell ak njëggalu yàlla ngërëmam ci hmm. jóg di wuy ci te ànd ak ixlaas boobu ma doon wax jóg dem dafa am xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa root bu gudd jëmm joo xam ne dafa jaaroon daal yoonu càggante ci mu kenn yàlla xiir ko nag ci faat bakkan muy faat ba faat téeméeri nit yu manque ñett yonente bi sallallahu alayhi ci boppam quatre-vingt-dix-huit par vingt dix sept par cent demee ci benn borom xam-xam bu am yaakaar ci moom ne ko daaray quatre-vingt-dix-sept personnes luy ab àtteen kooku ne ko sawara ne ko moom bala moo dem sawara kon moom na ko jëf na ko fi jële koy rey na ko rey moom naaw dem na sawara day dem sawara demaat ci ñeneen ñaar muy téeméer bu ma sëkk mu tiit nag dem ci koo xam ne leen ëpp ak dégg jàngandoo bari nañ waaye ak dégg ci la rawante kooku ne ko da dem ci dëkk suuf soo xam ne lu baax nga fa jaww jaamu yàlla ma nga fa ma fay jol soo demee ba fu tuubi yàlla mën na la jëkkal yow de yaa sut xam-xam ma tas yàlla bu dal na bu xëy ak jàmm day daal di xëy jàmm sangam mu xeye ba génn toli dëkk bi rek wa ñaari buri malaika malaayika ko ñii ne dañ koy àtte ci limu mujja mujj a def reykatu nit la won moko ko an qatala muminan muta'ammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azaban azima ñenn ñi ne fam jëmoon lam fa doon wuti ca lañ koy àtte ndax lu baax a ko taxoon a jóg innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa wa ma umiru illa liyabudullaha muxlisina lahu dinahu nafa mooy yéen biñ ko xëccoo nag yàlla yabal ko leen di àtte bi mu leen di àtte ñu ne nu mu leen di àtte mooy dañuy natt fa mu jóge woon ak fa mu fu ci gën a jege bu fekkee fi mu moo gën a jege àtte la mu mujj def lañ koy àtte su fekkee fa mu jëm moo gën a jege atteeb fa mu jëmoon te lañ koy atte liñ koy natt nag yàlla digal fa mu jëmoon mooy borom ma innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dañuy natt nag mu yabal mu jox ndigal fa mu jëmoon mu gën a jege si benn sebre sebre mooy mooy ñu ne kon fa mu jëmoon fa lañ koy atte daal koy dugal ci yërmande suñu borom kon ñii ñëw ñëpp ci amagutoon yéen a jooju na na fasaat ci wuy dem fu baax ngir wuti fa baax yàlla ñu ko bu baax yàlla nañu ko fekkewaat ay ati at am na nag ku ne woon suñu fàllu rom la loolu laay tëje dañoo ne ko dama soxla woon waxtaan bi suñu toll ne ko bismillah ne ko xanaa kay ak wéet toog de bu wéetee it su ma ñëwee wax leen li ma yow kon naa ko wax dama àndoon nag borom barak ma dem ci Cheikh Moustapha ba gisatuma ko kon loolu nga ñëw tey ngir lan doo ko fas yéene ànd yow lu yàgga yàgga yàgga rek mu ne ko bëgg noppi de naan ko yàgg yàgg yàgg mu ne ko def ko wert naw yow ku toxu nga toxu ca ka ca des daal man man naa fi yàgg man kon nañ fi yàgg yàgg daa am solo lool mm. genn góor nee na ma ca ndak ca Dakar ci magi magi lefar yi la bokk mm. ma man de bëgg naa fa yàgg ma ne lu tax mu ne ma danaa gis Sëñ Saliou bëgg ko foofu lu muy njëriñ waaye ginnaaw Sëñ Saliou bëgg na fa yàgg moo tax ma bëgg fa yàgg xam naa ne suñu sa lu mu bëgg njariñ njariñ na ka ci asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah